صلاة الذي في كل سعر وفي سفر عماني على ماهن مع الأبس والسفر السلام عليكم مبوكي ngir lu jëm ci waajtaayu màggal gi DMTV da cee fas yéene def liggéey bu am solo ngir ay émission ngir lu jëm ci waajtaayu màggal gi maa ngi ak sama naataango Serigne Mor Lam Kenda loo ñu fas yéenee indil ci waajtaayu màggal gi. jërëjëf Serigne Ablaye fas yéene naa leen indil émission yu am solo yoo xamante ni dinañ ci waajal màggal gi di ci dalal jàngkat yi nga xamante ni ñu ngi fii ci biir dëkk bi kon képp koo xamante ni moo ngi jàngkat fii ci Touba Moroom dax la na waajal taxam ne maa ngi ñëw incha allah. jërëjëf Serigne Mor man tamit fas naa yéenee ñëw ak yéen ci plateau spécial waajal màggal gi. fas dalal gewri ñi nga xamanteni si ni ñoo ŋànk liggéey bi te tamit bu len faté mbégum safar gi ak serigne Bara Fall. jep sëriñ Ablaye kon serigne Bara Fall ñu lay xaar bu baax mbokk yépp ñing lay xaar ñoko ko ak it di and ak soxna si nga xamanteni moy soxna ki ne Yaay Fall. soxna ne Yaay Fall tamit dana ñew ak yeen ci plateau eut soxna yi jërë ngeen jëf mbokk yi. asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan man soxna Kiné Yaay Fall maa ngi waaj màggal ci DMTV di leen jox dig daje seen plateau ëttu soxna yi jërë ngeen jëf.